amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen ñu ñu tawlu ci 5M TV Sénégal amati nañu mbégte ak bànneex mbokk internet yu 5M TV Sénégal di leen dégtal xibaar yi. la ci gën a fës dañuy àddu rek ci lu ñeel plant bi nga xam ni seddina Omar Touré eh, teg na ko rek ci kaw Anita Diop mu jàpp ni kookee kon mooy rek yëkkati ay xibaar yu wérul di ko teg ci ndoddam moo waral kon mu daal di koy plainte fi mu nekk nii ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir seet ko ci nag eh, Facebook bi ginnaaw kont bi nga xam ni am na ko fa Anita Diop mi ak lépp loo xam ni rek mën nañu ko teg ci ay matuwaay ngir mën koo gis nag fi mu nekk nii eh, teg nañu ko rawatina suñu kilifa yi ngir nag daal di koy seet ba gis ko fii ci Sénégal ak ca bitim réew Boubacar jàlloo ñu gën koo xam ci DJ Boubs nekk ca iRadio mi ngi ŋàññi Guy Marius Sagna mi nga xam ni ma nga ca parlementaire bu CEDEAO di wax rek lu ko neex ginnaaw ñeel kon mbir moomee ki ko défendre sax di DJ Nicolas bu Sud FM moom itam jël na rek défense kii di Guy Marius Sagna mu ni kon nag moom diplomate la te itam rek am na liberté wax rek la ko ñor wax itam la mu bëgg ñeel kon ci société yi ak fépp fu mu mën ci doon mu ni nag moom da koy jaajëfal ginnaaw rek askan wi nga xam ni moom lay défendre saa su nekk waaye dëgg gi nga xam ne ñeme na di ko wax ak ku mu mën ci doon moom Nicolas di xam ne ni kon Guy Marius Sagna mi ngi ci yoon bi te lii muy def nii dafa rek teewal askan wi foofe nag ca CEDEAO te loolee da ko ci encouragé bu baax a baax ñeel waxtaan wu nga xam ni ñoo ngi ko fay amal.